seetaan defee balaa ñuy tàmbali ñoo abonné baatu dëgg boole ci asalaamaaleykum euh, suñu mbokk internet yi gannaaw bañ leen nuyoo ziyaara leen euh, fii ci baatu dëgg euh, TV ñiy nuyu ñi nga xamante ni ñoo ñuy teewlu ci baatu dëgg waaye tamit di bëggee ñi nga xamante ni nii wax dëgg yàlla ñoo ñoo ñi nga xam ni ñoo ñuy ñoo abonné baatu dëgg boole ceeg wax dëgg yàlla di ñu suivre à chaque fois ci suñu émission bi nga xamante ne nii moom moo di jotaay ak askan wi comme niñ koy waxee rek saa su ne jotaay ak askan wi tey jii ñu am invité bu am maanaa invité bu am solo boo xamante ni wax dëgg yàlla waa baatu dëgg yàkkamti woon nañ ko gis ah, xaa ñu bàyyi ko rek mu daal di koy ah, dalal fi nga xamante ni moo di baatu dëgg mu daal di nuyu ak ñi nga xam ne ñooy suñu mbokk internet yi asalaamaaleykum ah, Abdou Aziz. maaleykum salaam Penda. ginnaaw bi ma la nuyoo bu baax a baax a baax maa ngi nuyu mbokku internet yi nga xam ne ñooy seetaan baatu dëgg ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk di la jox sa wàccuwaay bu wér a wér a wér. donc da nga may permettre tuuti kon ni nga xam ne moom laa koy faral di defee. ndeysaan bala maay wax dara may nuyu ki nga xam ni moo nekk sama yaay. Mm. nekk euh, Fatou may sa Guèye. macha allah nekk ki nga xam ne si moom laa tàmbalee yem si moom képp. di ko ñaanal mu ñaanal nu bu baax a baax a baax émission bi nuyu tàmbalee di commencé ko si bisimilah rahmaani rahim eggalee ko si alhamdulilah rabbil alamin macha allah loolu dañ ciy kontaan loolu nag ah muy suñu maman yi nga xamante ne li ñuy tàmbalee lu ne ñoom la ñu war a tàmbalee ndaxte lépp ñoom la euh, li ñuy wax rek. Euh, xale bu bu bu bu demee ba ba taxaw ba dëgër li ñuy wax rek tëye ci mbagg yi mooy yaay yi kon donc ñooñu tam dañ leen di nuyu bu baax a baax macha allah Abdou Aziz ñu di la bàyyi nga présenté wu wax yow yaay kan. aha bu nga defee balaa ñuy tàmbali suñu mbokk internet yi xam ki ñuy waxal tey mooy kan. bisimilah. bon man defe naa ñu gën maa xam si ki nga xam ne moo nekk Abdou Aziz Faye mhm. nekk ki nga xam ne moo nekk le président COJER Falox Olof bi nga xam ni mi ngi situé à qui est précisément le département de Mbour. Mhm. Malicounda bi nga xam ne mi ngi composé une vingt-deux villages. Mhm. donc village bu nekk am benn coordonnateur man sama village ma nekk fa la coordonnateur. mais ki nga xam ne tamit moo ni supérieur mi nek nekk ki nga xam ne nek monsieur Gorgui Seck. Mhm. nekk moom it agent à l'université nek chargé de mission. donc defe naa en plus en bref délai kooku mooy Abdou Aziz Faye en même temps. Mhm. jiite benn mouvement bi nga xam basé ici. à Dakar bi nga xam ne mi ngi ko tuddee ànd dooleel Maguette Sène. directeur général bu nek nekk sama leader. nek sama mentor. maa koy nuyu bu baax a baax a baax a baax. jaajëf Abdou Aziz borom mouvement bu mag bi kon donc euh, mu ngi noonu dañ naan ko wax feeñ Abdou Aziz euh, le coordonnateur du mouvement en dooleel Maguette Sène ñu jaar foofu nuyu ki nga xamante ne moo di la coordonnatrice Awa Coulibaly euh, daal di koy ziar bu baax a baax waa Abdou Aziz en tant que Abdou Aziz comme ni nga ne yow yaay Abdou Aziz nga wax li nga xamante ne nii yow yaay le coordonnateur COJER de Falax Olof. donc coordonnateur COJER COJER ku ko dégg xam ne ay jeunes. Mm-hmm. la ñu tënk mm-hmm. ay jeunes yu dajaloo. loola. Abdou Aziz lan la eh, indil jeunes yooyu en tant que coordonnateur wala Abdou Aziz lan la def ci jeunes yooyu nga xam ne ñoo nekk falax olof fële ca Malicounda. bon loolu moom soo ma ko waxee dinaa si sawar pour tontu. Mhm. parce que Abdou Aziz fay defe naa moom mi nga xam ne moom moo jiite li nga xam ne moo nekk convergence des jeunes républicains. Mhm. maanaam signification de la COJER. Mhm. donc dëkkoon fi nga xam ne moo nekk Mbour. déménager dem dëkk fi nga xam ne moo nekk Falox Olof benn mm. village kon nu ma la koy xeesaa mi nga xam ne mu ngi nekk mm. dans la commune de Malicounda donc bu ma ñëwee nag si village boobu noonu mm-hmm. danoo fekkoon nu boolee Falox Olof ak Falox séeréer mm-hmm. parce que su ma nee village bi nga xam ne moo nekk Falox Olof donc kon ab beneen côté bi mm-hmm. am na Falox séeréer ba ñëwoon nu fekkoon fa benn coordinateur bi nga xam ne moo nekk Mamadou Dione moom it ma koy nuyu de passage moom mu géré woon euh, cogère boobu noonu tout court donc man ba ma xoolee si structure ma xam ne carrément ñaari village la kon lan moo tax ñu jël ñaari village yi boole ko benn benn cogère mm-hmm. am kenn ku koy diriger mu nekk Mamadou Jonn mm-hmm. ma ne man sama premier combat moo nekk dinaa jéem a fexe mm-hmm. def de telle sorte que Falokh Olof am li nga xam ne moo nekk cogère mu reconnaître ko bien structuré la nekk di def ay démarches def ay porte à porte waxtaan ak jeunes yi sensibiliser leen. Mhm. ba ñoom nu wóolu ma si dénk ma ko ma ànd ak ñoom dem si ki nga xam ne moo nekk kilifa dëkk gi. Mhm. nekk monsieur le maire Maguette Sène. Mhm. moom it nu wax ko ko soumettre ko ko. moom it daan dem leen ngeen fal li nga xam ne moo nekk seen cogère. ba ñëwee nag ma tegal jeunes yi ne leen man bëgguma si dara dara lenn rek laa bëggoon mooy que ni nu reconnaître li nga xam ne moo nekk falax olof. si la ma jeunes yi jëlaatee tamit confié waat ma ko ma seen engagement dénk ma li nga xam ne moo nekk bi. cogère bi nag ba ma ko yoree depuis boobaa ak 2017 jusqu'à présent mm. donc def nañ ay énorme réalisation mm-hmm. ki nga xam ne moo nekk euh, monsieur le maire Maguette Sène mm-hmm. moom it na ma si parce que tey suñu demee tey ba fa lox olof mm-hmm. nu mën faa jël ay jeunes

de 200 et plus yo xamné ay jeunes lañ yo xamné à travers ci sama loxo. Mm. à travers ci ndigalu monsieur le maire Maguette Sène ñu jaar sama loxo ñëw ba am liguey kon donc lolu mën na wax ni japp na en même temps. Uh-huh. des financements. on uh-huh. nous a donné des financements j'ai financé des jeunes. Mm. lepp tamit à l'appui de monsieur le maire Maguette sen kon donc pour loolu mën naa wax ne <laughs> macha allah loolu tamit rafet na trop comme ni ko waxee mais tam aussi euh, comme ni nga nga fekkee woon falax olof ak falax séeréer hein nek ben en fait euh, nga ñëw euh djema djema djema djema a waxtaan ak ñom mhm. bañu bañu xaj ko mhm. falax séeréer aussi yakarna ne ci bir malikunda la bokk mhm, est-ce que tam liñu def ci falax olof lepp mu ngi mengo ak falax séeréer non monsieur le maire Maguette Sène ku ko xam-xam ne euh, c'est un homme de dialogue ah. c'est c'est c'est c'est quelqu'un qui dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit donc euh, à travers des 22 villages donc defe il a financé na 22 villages yëpp ko gère bu nek financé na la une somme de 500000. Mhm. te nu mu ko defee si jeunes yi noonu la ko defee si femmes yi en même temps emploi tamit des jeunes parce que chaque chaque mois. Mhm. su quota amee. dañ koy répartir ci 22 villages coordinateur bu nekk ñu jox ko li nga xam ne moom la war a jox moom monsieur Dokaak ñi nga xam ne moo nekk ay jeune am kon monsieur le maire Maguette Sène moom nan xam ni ndey ji seex la jaaxaanaay la tëgg kon donc monsieur le maire Maguette Sène ndey ji seex la élément boobu nag moo ko wax nee na njaaxaanaay lay tëddee voilà donc kon ba tey dañuy ñëw tamit ci sa maire comme nee nga def na ay financement pour les jeunes def financement pour les femmes est-ce que tamit aussi jàppale na ñi nga xamante ne tamit ñoom ñoo nekk noonu a des femmes yoo xamante ne comme li ñuy waxee rek jeune femme yi jeunes yi nga xamante ni ñoom ñoo am fu ñu doole pour liggéey ñi ci des tamit aussi am na lu mu leen appuyer wala en maire nekk monsieur maire lan la euh, indi li nga xamante ni moom moo di ci commune bi nga xam ne foofu la nekk bon loolu moom soo ma si laajee man dama si sawar a tontu parce que monsieur le maire Maguette Sène moom ku ko xam-xam ne c'est un de dialogue c'est un homme de paix nekk administrateur civil donc ñu ngi jël commune Malicounda mhm. ba muy jël commune Malicounda ñun dafa am loo xam ne moom lañ ko falee woon. Mhm. mu nekk li nga xam ne moo nekkoon manque dox ak l'électricité. Mhm. te ba mu ñëwee da see def. liggéey bu mucc ay mhm. ba il a électrifié toutes les 22 villages de même que l'accès l'eau universel à toutes les 22 villages donc su fekkee li nga xam ne moom nga ma laaj ñoonu tamit mooy si jigéen ñi donc soo xoolee chaque village dafa insérer li nga xam mo nek ben ben ben usine savonnerie bo xam ne ñi si la ñuy mën di liggéey yo xam di di transformer des savons des jus ainsi de suite ainsi de suite pour que mënd di jaay pour mhm. mëna am ben revenu mhm. parce que moom dafa créer tamit li nga xam mo nek nekk réseau des femmes mhm. si 22 villages yépp pour jigéen ñi ñom di mënd di jokk fofu di ñew di jël seeni financement dem di liggéey en même temps di defar ay savon di defar ay jus de fruits di defar yeneen transformation yo xam dañ koy liggéey donc monsieur le maire Maguette Sène mom lolu mom mo nek mébétam bañ na ko ci ay discours am sax su koy wax mhm. danaan man sama yéene ak sama bëgg-bëgg mhm. mooy ma dem ba gis jigéenu Malicounda yi di dem du Dubaï di ñëw di dem di jënd di ñëw di dem Chine di ñëw di voyage di ñëw di yéeg si avion yi mhm. kon donc kooku su defee loolu kon nan xam ne moom jàppalewul jigéen ñi kese mais dafa jàppale góor ñi jàppale ndaw ñi jàppale ñëpp ah, moo tax man la ndey ji seex la <laughs> kon kon baax na kon loolu rafet na mais tamit aussi ah, ci jàppale jigéen ñooñu tamit est-ce que li ñuy wax rek infrastructure ci ah, communes yi nga xamante ne nii parfois lu ci mel wax nga ko sànq 3 féetee ci mhm. xëy ndaw yi mhm. euh, jeunes yi ci biir mairie bi mhm. intégré na leen ci wala tamit comme ni ñu koy waxee rek gars yi dañuy bàyyi paa rek ci biir mairie bi ay adjoint maire rek yooyu yëpp ñu ñu baleen foofu euh, moom naka la naka la doxalee daal naka la organiser ci biir maire non soo xoolee monsieur le maire Maguette moom équipe moom équipe bu jeune la donc ñu muy àndal di liggéey ñëpp équipe bu jeune la donc ma si profito à di nuyu le président sortant bu COJER bu cogère communal mu nekk monsieur Guèye Diouf nekk le plus jeune DMG à l'université defe naa moom la tek li nga xamni mo nek DMG kon mënoon na kaa teg ba mhm. mais ab xalé bu ndaw la ko teg soo demaatee tamit fële nga xamni mo nek ci mairie ba mhm. dafa jël fi nga xamni mo nek euh, l'honorable député madame la maire muy mun a momit mu nek li nga xamni mo nek ci état civil bi mhm. di signer di cacher lepp lu mu signer wala lepp lu mu cacher wul baxul en même temps yoré li nga xamni mo nek nekk bi di ko signer di yor légalisation yi kon monsieur le maire Maguette Sène mom lepp lu muy liggéeyal moy ci ndaw ñi la kay la kay defal si nit ñi la kay defal mhm. donc so né infrastructure tamit man dama ci kontaan mhm. parce que il y a de cela un mois yo xamné mhm. man dans mon village indi na fa ben central comme ben centre commercial bo xamné ni coût bi c'est 4 milliards 500 donc mu indi ko ba travaux yi commencé na mu nekk benn centre commercial boo xam ne Falokh mosu ko woon a am mu nekk centre commercial boo xam ne moo gë moo nekk centre commercial bu gën a ngand si Afrique de l'Ouest kon donc monsieur le maire Maguette Sène moom vision am yeesu na fii mon mhm. moom léppam si jeunes yi la koy def mhm. moom léppam parce que moom il a bien compris que ni l'avenir de ces pays c'est pour les jeunes mhm. donc kon c'est la jeunesse boobu noonu kon si lay woowaat nit ñi di leen waxaat ni moom léppam jeunes yi la ko concentré wu ba si commune ba ba si liggéeyam non mag ñi duñu parce que moom kenn ku nekk da lay jox si li nga xam ne mooy sa mooy sa <laughs> kenn nekk li nga li nga li li nga li fi nga nekk mhm. dala ko fay jox ba mu doy sëkk dalay jox sa cër dalay jox sa li nga xam ne moo nekk sa yéeguwaay mhm. parce que suñ nee tamit day liggéeyal jeunes yi tamit mhm. mais day liggéeyal ji mag ñi parce que tamit mag ñi dinañ soxla li nga xam ni moo nekk seen xalaat dinañ soxla li nga xam ne moo nekk seen stratégie parce que dañ ni tamit nu mu tuddati en Afrique quand un vieillard meurt c'est une bibliothèque qui a brûlé kon donc mënunoo sànni li nga xam ne moo nekk mag ñi quoi nekk seen suñu ginnaaw di nu buux di di daal moom daal dañuy teete rek waaw macha allah kon loolu am na solo ndaxte euh, boo gisee xale rek jiitu xalaatal ne am na mag mu nekk ci gannaawam di ko buux kon donc noonu nga ko noonu ngeen ko defee daal ak euh, monsieur le maire euh, Maguette Sène ñi ñëw fi nga xamante ni moom mooy kudd ah kudd bëri na problème de non kudd kudd kudd amul problème kudd moom amul benn problème ah, ah, bari na problème waaye nag ah. kudd ban moo fa nekk dama bëgg nga ni ma kudd problème bi moo fa nekk parce directeur général bu nous mhm. par ailleurs monsieur le maire Maguette ah. donc euh, mom defe naa. bu muy ah. jël université. Ah. defe naa ñëpp gis nañ ko. nu université meloon ak légui nu université mel. donc euh, defe naa tey soo duggee université da ngay yaakaar ni yaangi Paris. da ngay yaakaar ni yaa ngi Amérique da ngay yaakaar ni yaa ngi Chine. parce que sooy suñu demee tey ba ay ñag. ba ay français. di jóge seen i dëkk di ñëw université di fa def ay shopping di fa def seen i mariage di ñëw di découvrir li nga xam ne moo nekk centre des œuvres université bu Dakar. Mm-hmm. maanaam kudd bi nga xam ne foofu la nekk. Mm-hmm. parce que monsieur le maire Maguette Sène ba muy ñëw université fekk fa woon dërëm. Mm-hmm. tey étudiants yi amul kenn koo xam ne da ngay jooy lenn. ba si seen dëkkuwaay ba si nga xam ne foofu la ñuy tëdd. defe naa ba mu ñëwee ay matelas yi nga xam ne moom la fekkoon. mais dafa changé matelas yi indi fa ay matelas orthopédique. waaw mm-hmm. fuuyal étudiants yi. ba étudiants yi ke képp koo xam ni. da ngaa nekk étudiant yow da ngay yàkkamti université ji ba nga dem dëkk eh, université parce que ñoom mhm. université ak loolu nu mu mel ak niñ ko changé noonu te jeune jeunes bu manifestation amee ñu dugg fa yàq tamit non xam nga xam nga loolu lan moo ko waral mhm. parce que mooy politique bi nga xam ne moom lañ fa dugal mhm. mooy l'opposition bi nga xam ne ñoom parce que université dëkk la université moo nekk centre Dakar moo nekk xolu Dakar tey université tey suñ ko bloqué rek mhm. Dakar day bloqué kon donc éti lii ñi nga xamni mo nek les politiciens mhm. ñi nga xamni ño nek les opposants ñi nga xamni ne bëgguñu lu baax mhm. ñom lu bon lañ bëgg fu nu gis lu baax ñom dañuy jéem wone wane safaan ga ñom ñoy utiliser li nga xamni mo nek les jeunes di di utiliser ñi nga xamni ño nek étudiants yi di dugal seen xel ak seen xalaat li nga xamni ni bokkut ak li nga xamni mo nek les réalités yi nga xamni mo nek nekk université moo nekk réalité yi nga xamni mo nek au niveau national donc lolo waral ñuy dugg ci étudiants yi yenn di leen cromp di leen gëmloo loo xam ne amul pour que ñoom it ñuy mën di génn di manifester pour jéem a diaboliser l'opinion publique ak li nga xam ne moo nekk réalité mais loolu nan xam ne carrément université loolu amu fa parce que monsieur le maire Maguette le directeur général bu kudd képp kuy wax xam ne changé na université tey da ngay xool étudiant bi nga xam ne su jàngul deful dërëm bëgg a toog pour pour pour pour mhm. si yi nga la mu banc public yi. Mhm. wifi bi dal. Mhm. pas l'appel téléphone vide nga dug vous sa chambre di di connecter fi nga sa di le maire Maguette en même temps manque de yi nga fa donc le maire directeur général bu dañ mom nan lay aussi yak bi nga de à chaque fois su su su fekké comme nima ko waxé sànq rek dara étudiant yi ñew genn yak lu euh, monsieur le maire DG nan la koy dundé non koy dundé kon nuko ñëpp du mhm. parce que tay kenn bëggul ngay di ngay défar mhm. nit di ñew di yak mhm. tay ku soñon soy défar kenn du yak kon nit di defar ngay yak, lolu nekkul lo lu rafet la. Mhm. kon moom da koy naqarlu. di woowaat si étudiants yi si dal di woowaat si étudiants yi si li nga xam ne moo nekk dialogue di leen xamal ni ñoom foofu c'est c'est le temple du savoir. Mhm. ñoom ñoo ko war a mën a conserver seen dëkkuwaay la. Mhm. ndax da ngay xool étudiant dafay nekk pendant douze mois yi presque dafay nekk. onze mois wala dix mois yoo xam ne biir université lay dëkk kon donc foofu ñoom ñoo ko war a defar ñoom ñoo ko war a ñoŋal mais ñoom su moo ko war moom heure bu nit ñi yàqee moom dina defar parce moom si loolu la nekk si moom lan ko yaree si loolu la xam te si loolu noonu li nga xam ne moom lay dox kon donc nan xam ne monsieur le maire moom it da koy naqarlu mhm. kon naqarlu nu ko ñëpp di naqarew mhm. parce moom sénégalais la Sénégal la dëkk fii la dëkk fii la juddoo fii la yaroo fii la jàngee génnul fenn dem jàngi ji lépp lu mu am Sénégal la ko amee kon donc lépp loo xam ne dafa naqari Sénégalais yi mhm. da koy naqari loo xam ne dafa neex Sénégalais moom da koy neex mm, baax na comme lépp lu naqari Sénégalais yi dina ko naqari lu jëm ci employabilité yi nga xamante ne nii ñu ngi koy defoo au niveau de Koundou est-ce ko Malick Malick Kounda rek non monsieur le maire Maguette Sène ku ko xam xam ne parce que <laughs> est-ce que waa Malick Kounda fee suñu Koundou tamit non waa ah? Malick Kounda fee suñu ah. Koundou parce que mm-hmm. monsieur le maire Maguette gis uh-huh. nga Malicounda uh-huh. dafa bok ci département de Mbour uh-huh. te lolu defe naa damay dama damay bëgg sax nit ñi def ci témoin nit ñi nga du def ci micro territoire parce que lolu daf may neex daf may joie parce que man dama see dama fay ñew damay dem ba Malicounda voilà lolu la bëgg ci département de Mbour parce que département de Mbour dafa composé 16 communes te commune bu nekk dafa am maire bu fa nekk mm. am tamit ay jeunes ya fa nekk mm-hmm. te monsieur le maire Maguette Sen mm-hmm. le département de Mbour mm-hmm. lam fa def amul benn leader boo xam ne mooy yeewoo département de Mbour def ko fa te musta nekk li nga xam ne moo nekk ministère te am ay ministre yo xamné ne nañ ci département de Mbour. Mhm. la fa monsieur le maire Maguette Sen def ci emploi des jeunes. Mhm. amul kenn ko xamné def na ko fa. parce que si mhm. seize communes commune bo dem ding fa gis mu jël fa ay jeunes. des palaponi de jeunes indi len à l'université nuy liggéey au niveau tamit national. fi ba fat fa fii ba Matam fépp foo dem soo demee université di nga fa gis ñoo xam ne uh-huh. ñii Dakar lañ dëkk uh-huh. ñii Mbour ñii Thiès ñii Tamba ainsi de suite ainsi de suite parce que uh-huh. monsieur le maire Maguette Sène moom c'est un homme fédé c'est un fédérateur moom day fédéré moom fépp fu mu gis jeune fépp fu mu gis nit dina la xëcc nga liggéey parce que day topp li nga xam ne moo nekk vision son excellence le président de la république Macky Sall donc si côté boobu noonu moom la koy woo parce que université nekkul université Massamba nekkul université dem certes ku directeur bi Malicounda la dëkk mais université université ñëpp a ko moom sénégalais yëpp a ko moom ñëpp ñoo am droit pour liguey fa kon monsieur le maire Maguette Sène loolu la xam loolu la comprendre mhm. motax mu xëc ci jeune yëpp outal leen fa liguey nu nekk fa difa liguey difa di fa daan seen doole macha allah loolu am na solo dañuy ñëw léegi ci loolu tamit euh, comme ni nga ko waxee léegi monsieur le maire Maguette Sène DG COUD dafa and ak ki nga xam ne mooy son excellence le président de la république naka nga gisee nag loi bi nga xamante ne tey jii moom la gaa yi coow non ku ci nekk di ci wax non day jàll ak du jàll non loi loi bi moom dafa nekk loi ah. loi bu la. dafa loi boo xam dafa war a mën parce que mm. quoi qu'on puisse dire. Mm-hmm. yàlla mi nga xam ne moom moo nu mm-hmm. am odeur am audience de pardonner. Mm-hmm. parce que yàlla moom moo ni moom dina baal lépp. ñaar la ni du ko baale. mu nekk Mhm. lolu kasse lan wax kon donc comme si lepp lan mën bal baal mhm. président de la république son excellence mom nek jullit mhm. nek sénégalais il y a de cela des années et des années kenn ku nek di ka ñaan nan ko danoo bëgg nu génne détenu détenu politique yi danoo bëgg nu génne les leaders politiques mom mu dem ba gis ni li ni sénégalais yi di wax peut-être man dama leen sey war mëna fekk ci parce que uh-huh. momit it falunu ko rek mu ne mo gën nit ñi moom mo moom nit ñi uh-huh. mu ne ma ne dinaa pardonner dina jéem a dina dinaa jéem dina jéggale uh-huh. faté té ñun ci loolu nonu lan ñu yar ci loolu nonu lan

fekkewuñu fu ñu koy nasee. Ah. defuñu la wuñ ko. Ah. laajte wuñ ko. Ah. mais suñ ko defee tamit moo gën. kon nag loolu mooy la. ah bon mais am na am na ñu ci ñu ciy boycotté de am na ñu ñu ci ñu ci àndut nag de bëri xam nga xam nga xam nga nit ñi lan lañ war a bàyyi. Mm. wa wa wax wax si suuf. Mm-hmm. ba paré ci kaw so génnee nga wax lénen donc yow lo wax ci suuf ba mu nekk ci yow mm-hmm. so génnee ci kaw da ka wara mëna fessel mm-hmm. il nit ñi lan bàyyi di diaboliser mm-hmm. Macky Sall ak la population parce que quoi qu'on puisse dire dafay def ay réalisations yo xam c'est palpable c'est quelque chose qu'on peut saisir c'est saisissable donc lolu dañ ko ka wara nangul dañ ko ka wara jë def lii nii quoi. Mhm. nangul ko ko. Mhm. xam ne carrément monsieur le euh, président Macky Sall. Mhm. lépp lu mu def ak lépp lu mu wax si ngëneelu sénégalais la. dafa gën seen dafa gën dafa gën si Sénégal dafa baax si Sénégal moo tax mu di ko def. parce que dafa yàgg xeexal Sénégal. dafa yàgg a jooyal Sénégal dafa yàgg a liggéeyal Sénégal. te loi bii nii dafa nekk loi boo xam ne. loi bu baax la. loi bu def lii dañ ku dul mer. baaxoo mais kuy jàpp mer tamit. Mm. baaxoo ñoom noonu lañ ko noonu daal lañ ko jàppee ku du jàpp mer daal dangaa war wala war bu dara xewee daal ak ñi nga xamante ne nii manifestant yi nga xamante ni ah toj nañu dëkk bi yàq nañ fi def nañ fi lu ne ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy détenu euh, comme ni ñu koy waxee détenu politique comme ñoom noonu lañ ko tuddee. Mm-hmm. ah ñu nangu loi bi noonu jàll nii daal te yow nga ànd ci noonu. non xam nga mm. xam nga soo nee su fekkoon lu bon la. Ah. su boobaa mën naa see bañ a ànd. parce que tey nit tey nit lu nekk la mën a baale. dëgg la tey ñëpp nit lu nu def li nga Sénégal depuis 2021 jusqu'à nos jours lolu nekkul lo xam ne lu rafet la mm-hmm. nekkul lo xam ne lu jaar yoon la mm-hmm. mais ñun ñëpp ginnaw ban ka nakarlo ba paré mm-hmm. ginnaw ban ko métidloo ba paré mais il fallait que nous am audace pour pardonner am un cœur ouvert mhm. am un cœur de dialogue pour woowaat ñëpp pour réconcilier waat ñëpp mhm. parce que Macky Sall moo que le père de la nation su demee tey ba di fi bàyyi di dem bay jugee Sénégal mhm. kon war ne fait mona a paix war na fee mën salam, bàyyi salaam war na fee mën a nan xam ni politique coule affaire de haine coule affaire de rancunier affaire de lan la qui dafa japp ni qui mo wara a mën defar Sénégal qui japp ni kii mo wara a mën defar Sénégal warunoo mën a boole ay haine wala yu kenn xamul su intérêt que ma jotee. Mhm. ñun ñëpp nan booloo. Mhm. doon benn parce que nee doon benn mbooloo mooy doole BMD kon ñun ñëpp nan booloo. Mhm. doon benn ñooñu ba nakarloo li nga xam ni moom lan def. mitud lu ko mais tamit nan leen baal. parce que nit ñun nit kese lan. Mm. mënunoo wax mënunoo fexe ba du nekk nit. nit kese lan. Mm. lan moo waral le 4 avril su jotee. ñu ñu ñu ñu ñu ñuy gracier. Ah, yenn yenn yenn détenu yi lan moo ko mm-hmm. waral. c' parce mm-hmm. que dañ leen di baal c' parce que dañ leen di dañ leen di def lii ni jéggal. kon benn la tamit non benn la. Ah. waaw. Ah, ñooñu lan moo tax dun ni kon 4 avril lan moo tax kon nit ñi dun ne 4 avril kon warunoo baal eh. warunoo jéggale warunoo génne ah, yenn ah, Abdou Aziz Abdou Aziz 4 avril la ñu wax nag waaye bii nii hmm. anam si biir ñu banaar bàyyi rek nag loi bi nii nii nii nii mu jàll mais xam nga xam nga loi bi ginnaaw ginnaaw ba nu génnee ginnaaw ba nu wonee ginnaaw ba nu ñu gis lépp ak li ci gis lépp ak ñu xol yi ci kii yëpp mais loolu ñun suñu xol ba léegi da ciy tooy parce hmm. que tey mënuñu kaa lu mënuñu kaa naqarlu ba ñooñu nu tëj jàpp leen tëj leen si kaso bi loolu tax nu fàtte ko mhm. dafa nekk loo xam ne nit mënu kaa fàtte mhm. quoi qu'on puisse dire nit mënu kaa fàtte mhm. mais tamit il fallait que tamit nu am grandeur il fallait que tamit nu am benn esprit de dépassement boo xam ni Sénégal dafaa war a dépasser parce que ñun suñu bëggee defaraat Sénégal suñu bëggee reconstruire waat suñu bëggee àndaat il fallait que nuy am di baale mhm. di am lu nuy jàpp di am lu nuy bàyyi parce que nit su fekkee da ngay jàpp kase fii ba suba mhm. doo bàyyi parce que yow am na si ñenn ñoo xam ne tooñ nga leen mhm. tey baal nan la man am na si ñoo xam ne tooñ naa leen tey baal nan la mais a nekk fi war a mën a retardé non danoo war a mën a baale ni nañ jéem fexe xool naka lañ mën a def pour jàpp suñu datu élection ñu jàpp ko ah, dem si lii nii jàmm ak salaam moo gën lii nii lii nii kese amul amul ah lii nag il faut que ñu wax ci ah, dafa dafa nekk loo xamante ne nii wax dëgg yàlla actualité la te dañ ci war a wax donc dañ ciy wax dañuy dinañ wax ci li nga xamante ni moom mooy élection yi ndaxte euh, comme euh, ñu ngi déglu ba léegi suñu président bu ko defee mu daal di wax li nga xamante ni moom mooy datu élection yi ñu jëm ci nag xool nañ ciy jëmee mhm. ah waaye tamit bu ñu génnee foofu Abdou Aziz dañuy ñëw ci fi nga xamante ne ni moom mooy ànd dooleel magasin mhm. fi nga xam ne yow yaay coordonnateur bi mhm. gis ni que presque mu ngi jël mu ngi jël diir nga nekk euh, si si ginnaaw ñi nga xamante ni ñoo nekk ci ànd doo leen màgget seen mm-hmm. est-ce que am na loo leen mës a appuyer am na loo loo leen taxawoo wala ñooñu nga xam ne ñoo nekk ànd doo leen màgget seen am na au moins sax xanaa ñaar wala ñoo ci jël wala kenn ñoo xamante ni nii jàppale nga leen ba ñu am emploi non côté boobu moom soo ma si waxee tamit dama si kontaan bu baax a baax mm-hmm. mais danga may permettre rek mu mm-hmm. nuyu ki nga xam ne moo nekk la coordonnatrice di Awa Coulibaly moom mi nga xam ne tey suñu demee tey ba ànd dooleel màgget seen taxaw c'est grâce à elle parce que mën naa wax ni moom moo coordonné lépp ba mu jaar yoon parce que ñu si ñëw ñëpp presque moom moo leen xam moom moo waxtaan ak ñoom moom moo leen sensibiliser ba ñu ñëw kon donc aw Coulibaly mhm. moom dama koy jox nuyoo waa ànd dooleel Maguette Sène ñoom ñëpp mu jàllaleel ma ko yow it di la ko joxaale <laughs> donc ànd dooleel Maguette Sène si am na loo xam ni mës naa leen kaa defal donc mu nekk a euh, au niveau de l'université mu nekk emploi des jeunes am si ñoo xam ni renouvelé nañ si seen na si ñoo xam ni toogoon nañ ak diir mhm. boo xam am xamatuñu fan lañ war a mën a jaar mhm. pour nu renouveler seen contrat defe naa man taxaw naa si ba am na si ñenn ñoo xam ne mhm. renouveler nañ seen contrat ba instant bii nii commencé na noo liggéey c'est pas l'appel nag ñuy ñuy cité tour di wax mhm, ma Samba wala ma demb mais ñoom xam nan man xam naa te ñoom xam nan tamit nu ma leen jàppalee parce que man sama sama politique yëpp man dama kaa wékk si li nga xam ne moo nekk les femmes mhm. dama kaa wékk si li nga xam ne moo nekk jigéen de ma si profité waale de mhm. passage mhm. si weeru jigéen ñi ma leen si sargal di leen si tatagal di leen si jox seen wàcc mais dama koy jël dénk ki nga xam ni moo nekk sama yaay kon nu ma ko waxee man lépp lu ma am sama yaay la looloo tax man sama politique ma koy commencé si jigéen ñi di ko defal si jigéen ñi te am na si yu bëri ñoo xam ne tey mën nañ ma kaa témoin man lépp lu ma dugg sama yaay moo tax ma dugg si lépp lu ma réussir sama yaay moo tax ma réussir sama yaay moo tax may jàppale jigéen ñi ndax mënumaa am lenn lu ko sut maa am lenn lu ko lu ko umpu kon ma leen di sargal képp kuy jigéen. nekk si monde bi. Mhm. pour ba bañ a wax Sénégal kese. maa lay sargal maa lay tatagal maa ngi lay mhm. jox seen wàccuwaay. man nag sunu borom moom moo ñaaleeg jigéen dama leen a bëgg. <laughs> loolu moom da nga koy wone à chaque fois même euh, su fekkente ni euh, ñu ngi réunion sax yaakaar naa ni ne sa réunion yu ma assisté ah damay gis ni nga ci taxawoo jigéen ñi damay gis aussi ni nga xamante ni ngay wonee ni que noonu nga euh, fonkee sa wayjur mhm. mais ba léegi rek waa ànd doole màgge seen mën nañu am am yaakaar ci Abdou Aziz yaakaar naa ndaxte lu bëree bëree bëri waxtaan noonu nañ ko ak yow ci sama xalaat. Mhm. donc euh, yaakaar googu noonu mu ngi fi ba léegi. non ba léegi yaakaar gi ba mi ngi fi. Mm. ba léegi euh, détermination bi mi ngi fi. ba léegi courage bi mi ngi fi. Mm-hmm. parce que bu leen fàtte ni tamit. Mm-hmm. Hmm, presque ban danoo taxawal.

ACC. par la suite si la si la si lan saccagé université. Mhm. te soo xoolee ànd dooleel Maguette Sène ñu si bokk. Mhm. ñii danoo Dakar ñii nekk Mbour ñii nekk Fouta. et de suite rek ku nekk tas si si yi quoi si 46 mhm. régions yi. donc loolu moo waraloon. ba léegi lan waroon naa def si li nga xam ne moo formation ak li nga waroon li nga xam ne moom la waroon naa def si jàppale leen si. loo xam day génn si emploi. bi nga xam ne moo au niveau de l'université. donc loolu ñu ngi si en même temps. ñu ngi am nañ université tijjee. incha allahu rabi lépp li nga xam ne mën nañ ko say defaat mhm. tamit dinañ ko si defaat pour jàppale leen si renouveler contrat yi mhm. pour si jàppale leen tamit pour utal leen li nga xam ne moo nekk liggéey incha allahu rabi ñi ngi si te dinañ si jàpp te loolu lépp nag yaakaaruñ ko kenn si ki nga xam ne moo nekk la <laughs> maire Maguette Sène directeur général bu kudd moom mi ngi may dégg te su ma uh-huh. déggee incha allah rabi dina ñu si apporter ah, ah, ay ay réponse quoi yu concret en même temps uh-huh. di nuyu waale tamit ki nga xam ne moo nekk DMG Géej Diouf moom it géologie mm-hmm. rôle bu am importance parce que c'est le modérateur nekk sunu patron mm-hmm. defe naa première réunion bi nga xam ne moom la ànd mm-hmm. doole Maguette Sène def moom assisté woon na ko presque moom moo fa nekkoon waxtaan ak ñun wax nu tamit jox nu les points yi nga xam ne moom lañ war a def kon donc nan xam xam ni mhm. ñun képp ku nu àndal mhm. incha allahu rabi di nga si gis njariñ mhm. te di nga si gis tamit li nga xam ne moo nekk avancement lépp nag si intérêt Sénégal lépp si intérêt kuddu macha allah lépp ci intérêt Sénégal lépp ci intérêt kuddu xam naa ne ne euh, jël nañu temps ci suñu waxtaan na ah. xam naa ne fu mu toll nii moom wax dëgg yàlla yaatal nañu li nga xamante nii bëggoon nañ ko xam ci biir kudd yaakaar naa ne am na luñ ci jot waaye tamit euh, Abdou Aziz li nga xamante nii moom la waroon a wax tamit ci biir euh, mouvement bi sa jigéen boobu di euh, Awa Coulibaly mhm. moom it mu ciy def lu rafet a rafet macha allah liggéey bu am solo mhm. Mhm. nuyu ko passage comme ni nga ko waxee lan nga ciy waajal jigéen ñi ci ci ci mouvement bi non jigéen ñi ñu ngi leen si ah, waajal bi ñoo ko moom de no le 8 mars bi ah. xamna ba legui comme c'est xeyna peut être ñom après dinañ programmer xol la lan nga xamne mom lañ ci wara def mais man je suis prêt pour lepp lo xamne programmer nañ ci uh-huh. man suñu ma ci waxee dina ci apporter li nga xamne mo nek sama soutien uh-huh. te le maire Maguet Sen tamit dina ci apporter soutien uh-huh. te tamit Malikunda kenn kep ku fa nek tamit dina ci apporter sa soutien parce que ñun lenn mo no tax a jóg mooy defar boole nekk ñun ñepp nek ci ki nga xamne mo nek suñu ginaaw leader di monsieur le maire Maguette sen ndax man waxna naa len nee naa leen dërëm oo ma dërëm yuruma len lepp luma am ak lepp luma ma mën tey ak suma ma tay bay wax nit ñi dima déglu c'est grâce à monsieur le maire Maguette sen kon donc mom lepp dañ koy jëlaat joxaat ko ko moom moo yor cëggal guyam te ma len ci waxalé tamit même man le 8 mars bi sax dañ see am programme à falox parce que nak dañ see wara sargal ki nga xamné nak mo nek sama jigen nek sama mère ya. di madame la maire mëna job donc mu war ka sargal nak ah. mu nek 3e adjoint au maire ya. donc di ci sargal dogalaale tamit bépp jigéen bi nga xam ne moo mm. nekk Malicounda macha allah donc kon loolu nan xam ne tamit le 8 a à Falox uh-huh. donc coordination Baobab le coordinateur Cheikh Omar Dia nekk si ay Cheikh Diouf mm-hmm. kon ñoom ñoom doom ñaan donc nan xam ne le 8 mars tamit ñu ñëw ay a Falox waaw donc yéen it soo waaw mouvement bi suñu bëggee tamit man mën naa leen a apporter ah, waaw waaw loolu moom mooy dëgg sax <laughs> yaakaar naa ne ne mouvement bu day noonu nekk mouvement bu mag comme euh, li ñuy wax a xam mag nga ñëw nekk ci bopp bi soo waxee loolu tamit dañ koy euh, gëm xam naa ni que dañuy yemale fii suñu émission ndaxte yaakaar naa ne euh, suñu waxtu wa ñu amoon euh, booy seet mu ngi jëm ci cappaandaw ji mm-hmm. dañ lay bàyyi nga wax rek say dernier mot daal di tënk tàggatoo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu mbokku internet yi bu ko defee ñu daal di joxe di daje ne xam naa ne incha allahu rabi bés bu ñuy dem Malicounda te du yàgg dara incha allah dañuy àndandoo waar rek defaat émission ba biir Malicounda seeti ki nga xamante ni moo di la DG maire de Malicounda aha ginnaaw bu ma la santee yowit bu baax a baax a baax a baax Penda di rafetlu li nga xam ne moo nekk invitation bi. Mhm. maa kay sant bu baax a baax a baax di ko rafetlu. Mhm. di wax sunu mbokku caméraman yi nga xam ni ñoom ñoo taxaw fii di nu di di ko jël boobaak léegi ñoom it maa ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax. Mhm. di leen ñaanal sunu borom dëgëral tànk yi dëgëral kàttan gi. lépp fi nga xam ne bëgg nañ faa egg sunu borom eggale leen. donc muy tamit mbokku internet yi nga xam ne ñooy seetaan. baatu dëgg TV yi. ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax a baax a baax. di nuyu sama yaay médias di commencé ci mom di yem ci mom di jéxalé ci mom bu baax a baax a baax a di nuyu wa falox yi nga xamné fofu la laa mhm. en commençant par le coordinateur Cheikh Omar Dia mhm. Cheikh Diouf doom ñaan di nuyu nak samay xarit mhm. di nuyu samay collaborateur Ousseynou Gaye mohamed Guène di nuyu sama jigen Aswañ di nuyu dal wa Malicounda yépp di nuyu tamit ki nga xamné mo nek le nouveau patron des jeunes COGER bu Malicounda que mm. le coordonnateur Gorgui Seck nekk mm-hmm. un homme digne engagé discret qui ne fait pas beaucoup de bruit nekk nit ku ah. jub nit nit koo xam ni lépp lu mu wax da koy def mm-hmm. di nuyu daal waa malikunda, yëpp di nuyu adjoint au maire du di profité waale du souhaiter joyeux anniversaire ah. à l'adjoint au maire de Pape Maïssa Faye <laughs> di ko ñaanal mu dund bu baax a baax a baax di nuyu tamit ki nga xam ni moo sama mentor di renouveler waat sama engagement mm-hmm. ak sama détermination ak sama abnégation envers le maire de la commune de Malicounda Tambacounda. Mm. monsieur Maguette Sène directeur général bu kuddu par ailleurs nekk le président de Radel. Ah, Radel Radel. jiite mm-hmm. plus de 46 maires. ok mu jiite leen. Mm-hmm. boole leen fédéré leen di dox ci seen waaw di wax ci seen waaw. Mm-hmm. macha allah lépp pour ñu joxaat gëdd li nga xam ne moo nekk collectivité territoriale. kon donc loolu ñu ñu sant bu baax a baax. di nuyu daal waa Malicounda ñëpp. su ma limee damay juum di nuyu 22 villages yëpp di nuyu jeunes yeeg. mag ñeeg ñëpp. macha allah donc di nuyuwaale tamit ah. sa dëgg-dëgg. Mm. tey ñu ma jàppale. nekk samay soxna. <laughs> macha allah ñooñu dama leen di nuyu nekk ah, ñooñu ma ak deuxième dame ñooñu mënu maa wax ba jeexal te du leen nuyu. macha allah am na solo ñoom ñoo ma jàppale. Ah. ñoom ñoo ma dëgëral. ñoom tey lépp lu ma mën. Ah. ñoom la lépp lu ma am tamit ñoom la. di tàmbalee si ñoom. di yem si ñoom képp. di nuyu tamit sama rak. <laughs> sama xol ah Ibrahima Mama Madou di nuyu ñëpp daal. ah di nuyu beral nuyoo kenn koo xam ne tamit moo nekk Dakar. di nuyu Ndeye Senghar mm-hmm. moom it maa ngi koy nuyu di nuyu sama ñoom maam ñoom hmm. ñëpp nuyu naa daal ah, samay tons ñëpp su ma nuyoo damay juum di rafetlu bu baax a baax a baax a baax ñëpp di wax ni hmm. lépp lu si jub hmm. lu xam ne sëriñ bi la lépp lu si dëng lu xam ne tamit sama jëmm ji néew ji néew lépp c'est dans le cadre de bien faire bien faire macha allah c'est dans le cadre de bien faire comme ni nga xamante ne ni noonu la ko Abdou waxee euh, mu nekk nag jeune boo xamante ni dafa am engagement jeune boo xamante ne ni man bi ma ko xam ak léegi il est toujours derrière son mentor ah le DG maire euh, de Malicounda euh, Euh, monsieur Maguette Sen euh, vraiment mu nekk liggéeykat nag ndaxte euh, wax deug yalla tay ji mu jël temps yépp daal di koy dag ñew tok fi nga xam mom modi moo di TV la première chaîne républicaine nga xam fi lañ koy waxé fi moy deug gi fi rek lañuy waxé deug gi ma sha allah fi daal fi la lépp di xewee tubaar ma sha allah ba tay rek ñu bëggee ñi nga xam ñu ngi ñu doon seetaan ci internet bi waye tam di bëggee ñi nga xam ñoy suñu caméraman yi ñaaw ma sha allah ah ndey wali ak nga xamanteni ni modi Abdou ñu leen di bu baaxa baax vraiment ñoom tamit seen liggéey bu am solo di am mbégte contentement ci ñëpp ñëpp ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi Malicounda en biir Falokh comme ni ko Abdou Aziz di waxee mais itam ñi nga xamante ni tam ñu ngi ci biir mouvement bi nga xamante ne nii moom la jiite di mouvement ànd dooleel Maguette seen su ma su ma ci jiitalee ki nga xam ne moo di aw Coulibaly di laa coordonnatrice yaakaar naa ne dina dajal lépp ak ki nga xam ni sama doomu ndey la sama xarit la kooku di ko jaay Diop koy nuyu bu baax a baax macha allah bëgg kontaan ñëpp di joxe dig daje incha allah beneen numéro waaye ba tey tamit ma di leen wax ngeen abonné biir baatu dëgg TV ngeen bës cloche bi émission bu ñëw rek da ngeen ciy jot macha allah.